waaw suñu ñëw tey ci Touba fekk si euh, district sanitaire bu Touba moo doon rek dollu si li nga xamante ni bi dañ ko dooroon bi ñuy xeex ba tey ak jàngoroy coronavirus bi mooy ñëw dooleel si waat leen gunge si waat leen ci li nga xamante ni bi ñu ngi nekkoon di ko def démb bërki démb te tey jii ñu war a gën a jàppal ci liggéey boobu xam ngeen ne tey jii jàngoroy coronavirus bi nga xam ne dugg na Sénégal lu ëpp léegi ñetti weer wàllante bi léegi dafa soppeeku mu ngi delluwaat ci biir askan wi askan wi ñoo koy wàllante ci seen biir ngeen di dégg ñuy naan am nañu ay cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañu am doomu jàngoro yu corona ci seen yaram bañ ko seetee lañ ko gis wante kenn mënu leen lëkkale ak kenn ku leen wàll loolu tekki nag kenn ku nekk si ñun tey dafa war a njortu ne moom mooy ki nga xam ne moo am jàngoro yu corona ba daf cee war a fekk fekk ci askan loolu nag bu ko district sanitaire bu tuubaa dee liggéey day laaj jàppale bi gën a jege si gën a yokk gën a tar ndaxte soxla si gën naa yokk ndax dañu nekk yokk cere yokk ñeex fi mu toll ni soxla si dafa gën a yokk soxla si mooy nañu fexe ba askan wi kenn ku ci nekk ci moom jàpp ne moom moom moom xeex bi moo ko war a xeexal boppam moo tax université yu Sénégal yi nga xam ne toll nañ ci juróom-ñett ñoom ñoo boole seen doole jël gone yi nga xam ne ñu ngi leen di tàggat ci yooyu kër di université yi ne ku ci nekk fa nga dëkk am nga loo mën a delloo njukkal sa askan ndax delloo njukkal bi mooy askan wi moo làmb gafakaam jox ko état mu tabax université làmb gafakaam jox ko état mu defar tàggat ay professeur maanaam ñu leen di jox xam-xam mu làmb gafakaam delloo ko université ne leen dundal leen waaye tamit bu weer dee na nga mos as tuut jox leen ñu di koy wax bourse étudiants yi nag xam ne loolu yëpp ndeem askan wi moo leen ko mënal ñoom tey ji askan wi soxla leen am na lu ñu war a mënal seen askan moo tax ñoom ñu taxaw daal di taxaw bootu ci ginnaaw benn projet bu ñuy woowee cent mille étudiants contre le Covid 19 maanaam téeméeri junni ci ay ndaw yoo xam ne université yi lañuy ñuy jàngee moo xam fu ñu mën a nekk ci réew mi nag ñu ne ñun dañuy boole suñu doole teg ko ci loxo ministère de la santé jaarale ko nag ci centre des opérations d'urgence sanitaire bi docteur Abdoulaye Bousso jiite ngir suñu jàppale mën a àgg ci askan wi ñu rafetlu ko lool nag xamoon ne Touba fii dañ fiy ñëw tey ngir ne waa centre de santé waa district sanitaire bu Touba docteur Ndeye Maguette ne ko ndaw yii ci Touba la ñu dëkk dañoo bëgg liggéeyal seen askan dogu nañ ci lool ngeen jàppale leen ñu mën ko matale waa xam nga dompat sax ci sot la moo tax université ba muy dompat si dafa dompat si dompat bu am solo ndax da ko boole ak dooleem boole ko ak ay gel nga xamante ni bii moom la ñuy sellalee loxo yi waaye mu boole ko ak ay masque ndax tey jamono bii ñu toll nga xamante ni bii wàllante bi mu ngi ci biir askan yi dafa am ponk yu am solo yoo xam ne kenn waru ko bàyyi ginnaaw mooy kenn ku nekk ci ñu ginnaaw bi nga jàppee nag mën na am wàllante bi ci yow la jógee kon feguwoo ci sa morom feguwu ci dee leen takk masque yi université na man kat damay dem ba Touba xool tayooru Touba yi nga xam ne ñaw mooy seen métier waaye fan yi daanaka dafa dëgër ma jox leen ñu ñaw ay masque ñu waat ko waa Touba kon université joxe na ay masque yoo xam ne xam naa nag daanu dajul fépp niñ ko bëggee ba mu jotee fépp xam naa du mën a jotee fépp waaye am na as tuut soo xam ne indi nañ ko ci jàppale masque yi lii ñu boole loolu nag ak kàttan ak xale yi nga xamante ne bii waa Touba la seeni doom lañu leen jox seeni doom ngir ñu mën a dugg ci ñoom waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom xool fan la ñu mën a déggee ñu waxe fa ak ñoom ndax man bu ma jógee feneen ñëw xëy na na may waxanteeg ñoom du mën a méngoo ak ñoom nañuy déggee waaye kii nga xamante ne bii bu waxee ak ñoom na muy waxee ñoom dana dëppoo ak nañuy déggee mooy étudiant mooy seen doom bi nga xam ne fii la dëkkee moom moo dogu ci boppam ne moom kat dina delloo njukkal réewam jaare ko jox xabaar yi mu mën a jox askanam waaye tamit ku mu gis ne soluloo masque wala ni nga takkee masque bi naka noonu la mu jàppale ci ba nga xam lan mooy njëriñal takk masque bi waaye mu ne la takk masque bi tekkiwul ne da ngay bàyyi raxasu da ko war a booleeg raxasu takk masque bi tekkiwul ne da ngaa war a toogee ak sa moroom nu la neexee déedéet da koy boole ak dandante ak sa morom meetar yooyu di ay xabaar yoo xamante ni bii gone yi dinañ ko dugg ci biir askan bi yombalaatal ko askan bi fàttali leen ko ci seen i kàllaama waxee ñoom fa ñu mën a déggee ndax dañoo ne bu jàngoro ji nekkee ci biir askan wi askan wi ñoo ko war a xeexal seen bopp te ñoom loolu la ñu def. diwaanu Diourbel Touba ak Mbacké tey ñu dajaloo woon fii ci euh, centre hôpital bu jéemul ngir nangu ndimbal li nga xam ne euh, kuréel gi nga xam ne moo tënk étudiants yi waaye tamit centre des urgences des opérations d'urgence sanitaires jàppale nañu ko ngir ñu mën a wéyal suñu xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex. étudiants yi nekk fii nii yëpp tey dañoo takku jóg ngir euh, euh, jëmmal xeex bi nga xam ne moom lañuy xeex étudiants yi tamit dañoo jóg wane ne mënuñu lu dul toog seen kër rek dëkkeewuñu lu dul toog di nelaw rek waa tey fi suñu réew amee problème fi ñu suñu réew soxlaa dañoo war a mën a jóg lu néew néew bu dee wax dong lañ si mën ñu jóg waaye ne wax dong lañ si mën te wax ji ñu si mënoon jeex na tey ndaxte yokk nañu doole xëy na bu njëkk dañ doon wax rek waaye tey mën nañoo wax mën nañoo jàppale nit si leneen loo xam ne dina ko mën a jëfandikoo pour aaru ci feebar laata ñuy wàcc si bërëb si si biti si mbedd mi pour wax ak ñi fi dëkk laataa ñu wàcc si mbedd pour wax ak askan wi jot nañ ñoo tàggat tàggat nañu ñetti yoon bu jiitu si tàggat yi jàngal nañu ñi nga xam ne moom lañu ñu war a mën a nekkee ci biir askan wi ñi nga xam ne lañ mën a def ba jàllale li nga xam ne bëgg nañ ko jàllale te jubluwuñ ci lu dul ak mbaax jubluwuñ ci lu dul nit ñëpp mën a fagaru mën a aaru ci mbas mi